télé bi bégal sama askan Ladoum TV c'est Ladoum TV waaw pour spectateur la bi comme ni ngeen ko gisee ñu ngi ci cappaandaw li ñu ngi taxaw ak ñoom ñoo yore wàllu communication bi nga xam ne mooy association bi bàyyi leen ñu nuyoo téléspectateur Ladoum TV ah. ñu wax ñu seen secret bi tax tey réussite bi macha allah. asalaamaaleykum mbokk Ladoum TV ñu yow foo ci toog maa ngi tudd Omar Ben Khattab man maay responsable communication Sokone Diourbel donc euh, réussite bi nag par rapport ak euh, foire bi déggoo ànd nekk benn bokk ndey bokk baay xuloo nañ ci bureau xeex nañ mais lii yëpp lañ ci bëggoon mooy ñu am ci ndam sama rakk bi nga xam ne nag mooy Waggy Gaye moom mooy responsable communication wu ASF mais dañ daan toog fi ba trois heures quatre heures du matin di nan la ñu mën a béggalee ñi nga xam ne ñoom ñoo nekk ci foire muy exposant yi muy nit ñi nga xam ne ñoom ñooy ñëw di visiter euh, boxe yi en tout amuñu sen fay wax dëgg yàlla def nañ li mën pour mën a taaral bés wax dëgg yàlla. waaw loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV wage ñu gis tey ñaari association amul xëccante kii xëccul jëmale côtéem kii xëccul jëmale côtéem ngeen àndandoo du début à la fin lu waral lool wage. waaw salaamaaleykum mbokki téléspectateur yi ñu leen di nuyu ku nekk ci turam ak santam di gërëm vraiment auditeur ak euh, téléspectateur Ladoum TV. Euh, loolu nag li ko wundu du dara lu dul ni ñaari président yi mel ak ni ñaari association yi mel moo détendu ba ci biir fois parce que bëri na ñoo xam ne ñu ngi ci biir foire bi boo leen waxul ne ñaari association ñoo ànd joxante loxo organiser ko duñ ko xam te mu nekk loo xam ne que vraiment idée bu ñu bëgg partager ci élevage voilà merci beaucoup association bu ci nekk mën na am feuille de route mun mën na ay activité am mën na war def ay bilan am mën na gérer agenda mais ci événement yi nga xam ne moom la famille élevage Ladoum war di am ñu fexe ba di ci daje xàccandoo dóorandoo daf ñuy gën a may cër daf ñuy gën a jëmmal daf ñuy gën a dooleel loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV ñi ngi tàllal yi loxo ah. yeneen association yi ñu def voilà mesdames et messieurs yi bari nañu kon lii day tax foire yi dina ñor tous ceux qui ont de près ou de loin ont tenu à ce que cette fête soit une réussite totale deuxième édition au nom de ASF bu gën a neex au nom de la GIE Suqali Jur gi nous leur disons merci vivement merci beaucoup merci waaw mbokk téléspectateur u Ladoum TV comme ni ngeen ko gisee ñi ngi ci cappaandaw li fête bi neex na tubaar fakkàlla du début à la fin ñu ànd ak ñoom tey ñu ngi taxaw ak le président bi nga xamante ne si mooy Pape Gueye Medina ñu fas yéene ko laaj ñaari kaddu rek Pape lan moo nekk seen secrétaire yi seen première édition ngeen réussir lu mel nii Pape. waaw euh, di waa Ladoum TV téléspectateur yëpp maa ngi leen di leen ziar secret bi daal mooy manko manko doon benn parce que lépp looy dugg ànd koog say rak il ngeen manko di sottantee xalaat mais su fekkee ni sopp àndandoo soppantee xalaat du am dañuy réeroo man daal ma jàpp ne man ak samay frères vraiment on est ensemble di liggéey man ak président Cheikh Sagna. président Cheikh Sagna mi di sama di sama rak di ku nekk nit ku modeste aussi et puis ku neex a àndal parce que day déglu ingénieur la borom xam-xam la maintenant mooy loolu da koy bàyyi këram am na muy ànd ak yow vraiment loolu Cheikh maa ngi la félicité di la wax ni place bi mate encore une fois sa place yaa koy toog uuf te yu du lu yomb jiite jiite mooy foo mu mujj jëlale parce que lu ne ngay gis si yoon bi donc di nuyu ñëpp di gërëm ñëpp ni vraiment man dama bég ba mënu ma wax. waaw loolu am na solo téléspectateur Ladoum TV ñu ngi nii taxaw ak Cheikh Cheikh tey en tant ñaari association ñaari président. ngeen organiser lu mel nii ba réussir ko lan moo nekk seen secret ndaxte tamit dañuy gis ñaari association ku nekk day xëcc mais bii dañoo gis ni ñoo àndandoo xëccandoo benn yoon jëm fenn tey ba am réussite bi Cheikh. non euh, dañuy jàpp ne benn entité la sax ndax euh, ñun bi ñu yegsee rek Pape dañ ko def suñu président. ndax du ko mote dafa modeste wàccee boppam def ñu ñun ay ay ay raxam uuf ñu. lu ñu wax ci idée bu baax mi nañu gars yi baax na nga xam lu ñuy wax rek ku la jiitu si néeg bu lëndëm moo la mën a wax fan ngay toog fan ngay taxaw Pape à travers Adam jaar na fu nekk si si organisation ak si événement donc bu ñu demee ba toll fii defe naa dañ koy delloo njukkal te lépp daf ñu ko jébalaat vraiment moo tax mu yomb amul amul dara si xëccoo amul dara si tiraillement lu ma wax mi ne baax na moom lu mu wax ma ne ko baax na vraiment moom la ñuy remercier waat remercier membre bureau yi parce que tam bu ñu budul dara ñoom ñoo ñu yombal tamit parce que soo xoolee tey bu ñu demee ba amuñu benn problème parce que ñoom tam ils ont coopéré nañu jeu bi ànd nañu suñu ñaar responsable communication yi benn ak ak euh, waa gi ni ñuy àndee rafet na suñu ñaar responsable finance yi Ousmane kan ak Diop ni ñuy ñuy àndee rafet na vraiment en tout cas rafet na daal lafa rafet. vraiment macha allah loolu la ñuy kontaan quoi. loolu taw feex la. Pape lan ngay tëjee. li may tëjee mooy di nuyu encore une fois réseaux sociaux yëpp di leen wax ni vraiment seen teewaay bëgg nañ ci te gis nañ ko te yëg nañ te élevage mënatul dem sans yéen yéen tamit mënatul dem sans élevage donc di ñaanal euh, ñëpp gudd fan. ak wér-gu-yaram xam nga xol bu feese doo mën a wax parce que lii jot am nii ci Dakar mu une première boo xam man ak Cheikh Saga ñoo koy réalisé sànq rek ci waxtaan nee naa ko am na ñoo xam ne bi ñuy càmm juddoo wala boo juddoo lu ndaw la te fii ci Dakar la ñu ne dem nañ ba bàyyi yar wala dem nañ ba mënatuñu te yàlla si ñu ñaan la ko dogalee kon sant yàlla la waaw sant ay éleveurs yu mag te boo seetloo ci élevage lii day wane élevage mi ngi Dakar waa Dakar bu ñu manqué lu ñu mënta def rek amul di ñaan ñëpp nag di leen tàllal loxo nañu ñëw ñu fédéré ñu ànd liggéeyal élevage Sénégal salaamaaleykum wa rahmatulah. mooy